Ah, premier ministre bi nga xam ne moom la ñu tabb si joo xam ne maanaam njëgi yokk na ba mara détaali waaye tamit Barthélémy Dias mi nga xam ne mooy député maire Ndakaaru ak professeur Moussa Seydi ak Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ak Serigne Babacar Sy Mansour ak monseigneur Benjamin Ndiaye Sadio Mané Ousmane Sonko njiitul Pastef colonel Souleymane Kandé ak Guy Marius Sagna député Marie Khemesse Ngom Ndiaye ministre bi ñu dénk wàllu wér-gi yaram gi ak président Mbagnick mi nga xam ne moo jiite MEDES promo consulting yéen a kaay gi di nee na des na des na des na ndax cinquante personnalité yi nga xam ne ñoo marqué année 2022 bi comme ni ko réew mi yàggee def at mu jotaay yéen kaay gi nee na nag képp koo xam ne bëgg nga xam cinquante personnalité yooyee maanaam demal ca réew mi quotidien yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñoo Amadou Ba premier ministre bi tey jii lay dem ci assemblée nationale ngir nag lu jëm ci wàllum déclaration politique générale docteur Abdourahmane Diouf moom nag jamono ji ma ngi woon ñi nga xam ne ñooy opposition bi ngir nag ñu amal li nga xam ne mooy ab motion de censure ngir nag a daaneel gouvernement bu Amadou Ba yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy lu jëm ci wàllum amnistie bi bi nga xam ne ñoo ngi ko doon wax Karim Wade Khalifa Ababacar Sall ba léegi mbir mi demul ci nga dikkal mbay laara te ñaar ñii ba léegi ñoo ngi xaara yéen kaay gi di ak Le Mandat xëy dañu xibaar naan ñu moodu moodu yi nga xam ne ñoo nekk ca bitim réew ca Espagne mer nañu ba maara détaal yi ndax fan yi nga xam ne moom la ñu génn ministre bi ñu dénk wàllum affaires étrangères di Aïssata Tall Sall moom nag dafa wax ca Madrid danañu ko toxale jëlee ko Madrid yóbbu ko xam ne ñoo nekk Espagne sa Madrid nañu loolee maanaam d'accord ñu si lu impopulaire la te nag loolee ka ay jafe-jafe lay yi nga xam ne maanaam ñoo nekk Espagne ñoom Njawar Seck ñoom nag jamono ji ñaawlu nañ ko bu baax a baax waaye nag li nga xam ne moom la ñuy sàkku daal état bu Sénégal daal di taxawal ay consulat honoraire yu bare bare bare loolee mooy jàmm ji waaye nag nekk fi naan dañuy jëlee consulat bu Sénégal mi nekk Madrid di ko yóbbu Barcelone loolee nag tegewul fànn yéen kaay gi di réew mi ko di jeex moo xew ca diwaanu Mbuur ca marché central ndax dafa am benn guinéen boo xam ne Aliou

ba ci marché bi la def googale ñaawtee am na ku ñuy wax Aliou Ba kookee tamit dóor nañu ko balu fetal dafa daal di ku ñuy wax Moussa Ndaw kookee tamit dóor nañu ko balu fetal ku ñuy wax Mbaye Diouf kookee tamit waa ji dóor na ko balu fetal journal bi de Le Quotidien nee am na ñeent ñoo xamante ni am nañu si ay gaañu-gaañu yu métte métte waa ji gis nga ni mu doon tuyu tuyee bal yi mën na la sore ko film waaye a kaay gi de la turbine xëy duñu na jër na accident bu métte métte moo am ci autoroute Ila Touba bi juróom-ñetti nit ñoo si ñàkk seen bakkan am na si ñett ñoo xam ne ñoo bokk benn famille maanaam benn njaboota ñoom nag Linguère la ñu dëkk yéen kaay gi di source a nee na ab bus akub camion 30 tonnes maanaam ñoo mbëkkante yéen kaay gi di réew mi ko di jeex xëy duñu xibaar naan ñu association des maires du Sénégal ku ñuy wax Omar Ba jamono ji maanaam mooy njiit la njiitu réew di président Macky Sall ni ki démb attaqué na kuréel bi nga ne Ousmane Sonko moo ko jiite maanaam kuréel bi nga xam ne ñoo ëmb maire yu yeewi askan wi Macky Sall na leen nee leen nag na leen leer na maire moom du ma nangu benn yoon mu am ci réew mi Birahim Seck nee bi nga xam ne Macky Sall ko loole nag du céeram te xaaruñu ko woon ci wàllu woowu yéen gi di suddi ko di jee nee na Macky avertir ñi nga xam ne ñooy opposition bi waaye réseau des élus du Sénégal ñoom Ousmane Sonko ñoom nag nee nañu dal Macky mi wàllum provocation ak wàllum dictature la leen di jaay waaye nag nee leer ne maanaam mbir mi duñu ko nangoo a li nga xam ne mooy liberté yi yéen kaay gi de libération nee na Aliou Kandji ñu naan ko major Kandji nekk ab gendarme boo xam ne dafa dem retraite jamono ji ñoo ngi koy tudd ci lu jëm ci wàllum escroquerie foncière ca diwaanu Kaolack ndax waa jii di Aliou Kandji dafa jaay ay terrain benn commerçant bu tudd Mamadou Moustapha Sarr domaine public la ko jaay lu toll ci 28 millions waaye na commerçant bi ba mu demee ba bëgg a tabax dañ ko koo daal di lànkal ne ko fii mënoo fee tabax ndax domaine public la mu daal di laaj Aliou Kandji major Kandji xaalis nga xam ne joxoon na ko ko wa journal bi nee commissariat bu Kaolack 28 novembre bi ñu génn dafa convoqué Mansour Kandji mu lànk ba tëdd sa naajo ba ñu wujjee loolee moo tax nag commissariat bu Kaolack jokkoo ak sûreté urbaine bu Ndakaaru sûreté urbaine yabal ay élément ngir nag ñu takk loxo Mansour Kandji bi gaa ñëwee ci kërëma dafa lànk ba tëdd sa naaj wa dem na mu def nag mooy dafa daw ànd ku njabootam tëju ci bennum néeg ba pare di yuuxu ne arme laa yor ñëwee dinaa tiire loolee moo tax police yi